salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Like Siweek TV euh, bienvenue tey ñu am mbégte ak kontaante dalal ki nga xamante ni moo di suñu papa suñu xarit doon kenn koo xamante ni liggéey liggéeynul am solo ci réew mi alaaji papa Doudou Wade maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar di ziare sa téléspectateur yëpp mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñooy faral ak di bëgg déglu seen télévision bi mm-hmm. tey ñu seet la ndax sa xarit sa wóllëre ki nga xamante ni moo di Alaaji Papa Dieng dañ ko tuddee làmb le 19 juin incha allah ci arène nationale mu nekk drap ki combat boo xamante ni moo doon ci diggante ki nga xamante ni moo di Mama Lamine ak Garga mu doon koo xamante ni dund na sport maanaam ci wàllu football dund na sport ci wàllu làmb tey jii boo ñu doon wax kan mooy Alaaji Papa Dieng ci lan ko xëy lan lan fan ngay commencé. bon di la di wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim di nuyu seen téléspectateurs yëpp. di am mbégte tamit ci li nga xam ne moo ngi ñëw di ma laaj ci jëf ju ji Papa Dieng wala boog ñun ñu ko doon woowee Pape Ibrahima Dieng parce que boobu jamono noonu lañ doon noonu lu tuddoon mm-hmm. noonu lu tudd mais ñu doon wax Dieng Papa Ibrahima mm-hmm. parce que ñun ci jamono boobu noonu lañ jàngi école mm-hmm. ñu ngeen ne da ngeen di wax ci ay jëfam ci sport bapare nag nga teg ci ne yéen làmb ji yéen a ko tudde combat donc euh, mu mel ni boog dafay wane ne Papa Dieng sportif la am na leneen lu mu def pour làmb mais yéen yéen tànn ci làmb pour tudde ko komba ma jàpp ne def ngeen lu baax def ngeen lu ngeen war a def boo leen jëlee ku mel ni moom ak ñeneen ëllëg ñeneen pour ngeen sargale ko combat boo xam ne bii dangeen ngeen ko tudde moom sans doute mu war ko bokk aussi ak ñu baree bari bari ngeen tànn ma pour ma wax ci moom bu ma sañoon nag li may wax dama koy waxal ñi nga xam ne ñëpp ñoom la Pape Dieng mhm. ànd ak ñoom ci xale mhm. ci école primaire ci mhm. footballandoo ci mbedd mhm. ànd ak loo ci football ci li nga xam ne moom la bëgg a football dëgg-dëgg te mu teel ko def te mhm. mënul ko ci gore bi mu bokk mais ànd ak moom aussi ci ñi nga xam ne ñoom la seqandool football boobu te mu far nekk fa muy Gorée muy Foyer muy Jaraaf muy Espoir Dakar mais ci ñi nga xam ne aussi ñoom la bokkaloon nekkandoo xale lu góor ñu amoon ay doxalin ay groupement yu ñu bokkoon ay association parce que loolu moo xewoon il faut ñu nangu ko mën mhm. mënuñu rejeter suñu histoire mhm, sociale alors ñooñu ñëpp nag ku ci nekk ci ñoom te ànd ak moom am nga cër tey pour wax ci moom moonte mhm. moon dina tiis ngeen yaakaar ci man ne mën naa waxal ñëpp mais dinaa wax loo xam ne lii peut-être que yàlla mën na ma ci dimbali ba ñëpp ñu d'accord ci dëgg la ku yàlla baaxal la Papa Dieng euh, te mbiru làmb dafa bokk ci ñi nga xam ne moom xaw na ko miin. Mhm. parce que teel na seetaan làmb man teeluma seetaan làmb. Mhm. man mën naa wax ne làmb doon naa ko déglu nii rek. Mhm. mais dem seetaan ni làmb mën naa wax pratiquement pratiquement ne Mbaye Gueye moomu ci dugal. te Mbaye Gueye li ko indi foofu ay nit la yoo xam ne yii mënuloo lim te doo ci boole Papa Dieng. donc euh, ku xam làmb la. kooku bëgg la. ku fekkee histoire làmb la. am na lu mu ci denc lu bari loo xam ni dimanche bu nekk. boo leen ko dégloo ci làmb ji. da ngeen di jàpp ne làmb rek la xam. ngoonte moom damay kontaan ci li nga xam ne moom lañ ko lañ ko tuddee. ci làmb ji te xam ne ku ci nekk ci moromam bu la ko sa jot mayee parce que jot gi posé na problème. war nañu wuyu ko ci loolu. dina am nag sama copte bopp euh, di di ziare di seet mbay Gueye le tigre de Fass yàlla na ko yàlla may wér mais képp koo xam ne kii àndoon ak moom wala nga nekk ak moom wala nga nekkoon ci écurie diggante boobu diggante kër mbay géey kër Maam Góor gi l'écurie de Fass diggante kër Boy Naar Fall ñoo ñëpp ku ci nekk ci ñoom euh, am nga war nga am ittewu mhm. boo ko mënee nga ñëw seetaan si combat bi gunge Papa Dieng. wala boog nga participer ci li nga xam ne. moom lay def ci bés bi. donc dañuy sant yàlla en tout cas wax ne tudde ngeen làmb ji ku ko war a tuddee. Euh, tey bu ñu doon wax yan jikko nga xamante ni moom nga mën a mën nga moom nga mën a jàng ci moom wala moom nga mën a wax sénégalais yi nga xamante ni Alaaji Papa Dieng am na ko jikko yu rafet yi nga xamante moom la làmboo. waaw li xam nga dañu commencé ci làmb. Mhm. te moo wax la ne man li ma xam ne mooy def na ko mooy def na football. Mhm. Euh, ñi nga xam ne xam nañ ko bi mu nekkee xale te bokk nag moom lekkool maanaam je parle des années cinquante deux cinquante trois cinquante quatre cinquante cinq parce que Pape Dieng bla euh, Alaaji Papa Dieng mu ngi mu ngi nekk ci mu ngi jàngee Repo Mandel jàng na fi une partie à l'école primaire mm-hmm. euh, boo leen demoon ci ku mel ni Papa Kouaté mm-hmm. ñu ngi koy wax Goutia caméraman la woon ci ñi njëkk nekk caméraman ci télévision sénégalaise ci la bokk. ñoom ñaar ñoo bokkoon école primaire. Euh, dama mënul visiter sama ay photo mais doon naa leen génn benn photo boo xam ne moom la. ak ñoom baabakar Babacar Loukobar. ñoom Mama Ndiaye yi nga xam ne ñoo doon football Asfa ñoo ñoo màggandoo. ñooñu ñëpp ku ci nekk Papa Dieng am na lu mu diggante yow ci xarit. loolu mooy li ma la wax ne ci sportif bi boo jógee làmb ji mhm. parce que foofu la ñuy commencé ñun di ànd mhm. ci école primaire bi mhm. mais bi ñu banee ba nekk xale dem lycée yooyu ñu commencé di ànd ci ay groupe ay association moom fi mu dëkkoon benn benn benn koñ central la woon dafa nekkoon ci koñ yi nga xam ne boo duggee biir Médina ci koñ yi gënoon a rëy la bëkk la la bokk d'abord benn bi rue six la woon gis nga ni mu toll ak fi mu commencé ak fi mu jëm ensuite mu nekkoon benn yoon boo xam ne bii euh, dañ ko tuddee Orwar. Mm-hmm. quartier Orwar parce que Orwar mooy euh, yoon bi nga xam ne niiw yu farañ daan jaar pour dem armeel mm-hmm. euh, seen kër nekk këru dajekaay. Mm-hmm. yaayam nekkoon sunu moroomu ay yaay. donc mu nekkoon koo xam ne kii aussi ku amoon ittale woon ci nit ñi amoon benn rôle sociale boo xam ne bi moom la doon joué ci ay moroomu yaayam ni mu nekkaloon. Mhm. donc Pape Pape Dieng je pense que ci ambiance boobu la la la la mhm. muy aussi ambiance kër géwél boo xam ne bi du woon comme géwélu léegi yi. Mhm. rank lii fu ñu daan daje la. di wax lu baax. di def lu baax. donc ñu amoon ay ay jamono boobu euh, du sa yaay rek moo lay yar. ak sa papa boo génnee seen kër. kilifa boo dajal mu xam sa papa xam sa yaay da la yar mhm. ne yaay doomu diw mhm. nangam nangam yow de waroo def nangam war nga def nangam dii mhm. de waruloo ko def donc ci ambiance boobu noonu la noonu la noonu la aussi pratiquement dundee Pape Dieng boo koy seet yenn saa yi di nga xam ne goréen la mais est-ce que yenn saa yi doo fa appar ne man la est-ce que yenn saa doo fàtte doo doo xalaat ne jaala faran parce que ñi nga xam ne ñoo nekk autour de saa amul kenn koo xam ne kii ci ñu nga xam ne ñoom ñoom la ndakaaru doon xool parce que ñun ñoo doon suñu ay mag euh, dafa am ay relations particulières avec le Jaaf et et principalement Lamine Diack jafe na nga toog ak Lamine Diack di wax waxu ndakaaru te waxu la Papa Dieng jafe na nga toog ak Papa Dieng ñuy wax affaireu ndakaaru ni mu doxe ni sport bi doxe ni football bi doxe wala volleyball te tudd Lamine Diack yooyu relation la am El Hadj Malick mm-hmm. loolu la relation am la am ak Omar Gueye bi ñu tuddee Omar Gueye Sène et ainsi de donc Pape Dieng nitu transversal la ci li mu doon ci li mu doon da ngay jàppe ne célèbre yoon la euh, ni mu juddoo te nangu ko te nekk ko da ngay jàpp ne moom célèbre yoon la donc dafay nekk obligatoirement ci ni mu dundee ci li mu doon na ci ay waajuram moom dafa war a nekk nit koo xam ne kii day defar loolu la nekkee aussi ci ay moroomam Euh, moromam yi ma xam mooy ànd ak ñoom boobu ba léegi mhm. dafa am ay relation particulière ak ñoom mhm. ñi mu dëkkal Médina mais ñun ñi nga xam ne aussi dafa doon joge Médina di ànd ak ñun ci Fanook mhm. euh, da ngay defee ne ñun ñi ànd ñëpp Pape Dieng moo ci nekk xaritu ñëpp euh, boobu relation la am ak Moustapha Sarr boobu boobu relation yàlla na ko yàlla xaaral jana boobu relation la amoon Khalifa Diop Mhm. boobu relation la am ak Moussa Touré. Mhm. boobu la relation ak la am ak sunu benn xarit bu tudd Bloc Waate. Mhm. Euh, ñoom ñaar ñoo nuroo jikko. Euh, toujours ñu ngi dox ci mbiru nit. ñu ngi ñu ngi fexe nun ñi ñuy rapproché lu nit am ci coono ak ci bànneex. ñu ngi sawet donc Pape Dieng nekk na nitu nitu nitu relationnel. ku am ay relation la. te relation taraanga rek. moo dox. ak nit ñi relation taranga boobu moo tax tey ngeen jël décision ak seetaankatu làmb yi fi am yëpp mm-hmm. ngeen tànn ko moom pour jox ko seen bés bi mm-hmm. mooy parce que am na lu mu digaalante ak ñoom mm-hmm. donc loolu mooy jikkoom ci nit ñi waaye tey euh, làmb di ko delloo waat njukkal ban appel ngay def ci ñi nga xamante ni ñooy mbokk yi ak xarit yi nga xamante ni incha allah rabbi ñoo war a ñëw ànd ak moom le 19 oo di wax ne que euh, damay xalaat sunu ay xarit yu bari yoo xam ne génn nañu àdduna yàlla moo leen moom Euh, bari nañu mënuma tudd ñëpp mais mën nga ci xalaat dara rek ñenn. Mhm. bu ñu doon dund tey dañuy ànd ak moom. Mhm. bu dee footballkat mën naa wax Matar Niang ak Doudou Mbengue par hasard. Mhm. bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee nit koo xam ne kii dafa nekkoon ci orchestre yi waaye mën naa tudd ñeneen. bu fekkee ne ay ancien ministre mën naa tudd ñeneen. bu fekkee ne journaliste yi dinaa sama xel day dal ci Babacar Touré. donc ba Papa Dieng am na benn benn relation de portefeuille. boo xam ne bii ñi nekk ci biir bari nañu war na saa yu soxlaa kenn rek génne kooku wax ak moom mhm. euh, euh, suma xel dem na ci Magib Fofana mhm. Pape Kouaté mu ngi dund suma xel ne dem na ci Modou Diop mhm. euh, bokk nañu ñoom ñaar ñi nga xam ne ak ñu mel ni Baba Sané Ousmane Bari ñoo ñooñu nga xam ne bi may wax léegi ñooñu ñu dugal ci làmba man boog ñoo ma dugal ci làmb mhm. mooy dañu nekkoon ci ñi nga xam ne ñoo jëkk a mbër mhm. mbër encadré ko mhm. utal ko encadre encadrement moderne ci mbay géey bi ba nga xam ne ñun dañ daan fexe sax ba match bi buy jeex rek ñuy taal suñu oto dem làmba ja euh, donc bari na ñoo xam ne ñii Euh, organisation ñoo ñu mën a tudd léegi nii. ñoo façonne ñoo ñoo ñoo encadré Mbaye Guèye. ba mbay Guèye génn ci lu ëpp làmb. parce que mbay Guèye dafa nekk ci làmb yi après génn lu ëpp làmb. Euh, gis naa ñoo xam ne ñii euh, bëre Mbaye Guèye lu nekk la daan daan la leen daan la leen daan jaral. ba ñoo ñu sax ñoo jóg ensuite encadré Moustapha Guèye pour pour àggaleeg moom yéene bu ñu amoon ci magam. moo tax ma jiital léegi mbay Guèye mm-hmm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may wér euh, yàlla may ko wér guddal fanam mm-hmm, mm-hmm. et di di si profité pour wax ne ko euh, ñu on pense à lui mais donc ñooñu ñëpp na ku ci nekk ci ñoom ñooñu ñëpp wax naa ne ku ci nekk ci ñun gëm naa ne boo ko yëgee di nga am yéene ñëw ànd ak Papa Dieng ci loolu ndax ñëpp dinañ ko mën ci bés bi dina jafe mais ñenn ñi xam naa ne dinañ jóg dem këram ñenn ñi dinañ dem ci làmb ji. Mhm. ñi dinañ jóg dimbali ko ci bés bi ci seen moyen. Mhm. donc parce que Pape Dieng euh, sunu Papa Dieng la ñun ñëpp. Mhm. Euh, suma xel dem na suma soxna. dafa génn àdduna. mais ku fonkoon Papa Dieng la. parce que dafa ma doon wax Papa Dieng xarit la pour yow sa xarit la. mais man def naa ko suma xarit. donc Papa ku yàlla baax la donc ñun ñëpp ñoom ñoom Lamine Naar Diop. bari na ci ñoo xam ne ñii bu ñëpp jógoon tey te am jot. Mhm. ñu nekk ci beneen contexte. Mhm. ñu jóg ne rek dañuy dem làmba ja. Mhm. Euh, làmba ji duñ fa xaj. surtout que nag ñun suñu jamono. bon ñu ngi nii ñu meloon nañu mel. ngoonte jigéen ñi fi nekk. ci Dakar. te war a jóg pour ànd ak moom. defe naa ne ngoonte euh, du ñu xaj ci làmba ji. lan nga maa ngi wax ay jigéenam. bari nañu. Euh, maa ngi leen di woo ci loolu. lan nga ñu mën a fàttali fàttali ci moom loo xamante ni ba léegi ni dafa la marqué. bon eh, xam nga dina am souvenir yoo xam ne doo ko mën a wax. dëgg la. Mhm. na souvenir yoo xam ne daf lay marqué mais doo ko fàtte. Mhm. ci jote bu ma jotee nit. Mhm. wala ñu jote ñun entre groupe. mu jóg taxaw ci réglé ko. parce que ñun mënuñu woon tàggu. te tey jii mel nañu noo xam ne ni meluñu ko woon booba. parce que loolu fi wax ne nettali xuloo xuloo la. xuloo la waaw moo lay wan ne donc ku ku ku ku ku ku yàlla may la moo am ay atu pour loolu. Mhm. te loolu mooy yombatul Sénégal. Mhm. Sénégal li fi yombatul mooy ay nit yoo xam ne dañu bëgg a jotee. Mhm. wala dañu jotee ba pare. kenn ku leen defaree. te moo am na capacité boobu. Euh, tey lan mooy doon kàddu gu mujj ak laka ngay wax sénégale yi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom la war a jox rendez-vous incha allah le 19 fële ci arène nationale. waaw rendez bi euh, demander à ce ku ci man dem nga dem ci. Mhm. woo leen ñëpp ci loolu parce que seen xarit. Mhm. nit nag sëñ sama sëriñ Cheikh Abdel Aziz Alamine dafa ne nit da koy fonkal ñetti yëfam. Mhm. boo leen bëggee jubboog moom da koy fonkal bésam. fonkal ko soxlaam. fonkal ko sëriñam. donc Pape Dieng am na bés. nañu ko fonkal bésam. Euh, kon papa ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, la jeunesse bi nga xamante ni euh, gis nañ ni arène du ñàkk parfois violence am fa lakk ngay delloowaat xel yi jeunesse bi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal lakk nga leen di wax kàddu gu mujj gi. waaw mais xam nga xam nga xam nga violence moom am na ci làmb ji am na mais principalement écurie yi la. Mm-hmm. te écurie ma su fi ñàkk. Mm-hmm. làmb ma sufi fi ñàkk. Mhm. dina am xeex. Mhm. xeex day am fu nekk. Mhm. amul benn béréb boo xam ne bii xeex du fa am. dëgg la mais warul bari comme ni mu baree ci làmb ji. nit ñi xeex nañ ci terrain football. xeex nañ ci autorail. xeex nañ ci saxaar. xeex nañ ci avion. xeex nañ ci jàkk. xeex nañu conseil de ministre xeex nañu assemblée. moom tamit xeex ci nat ci nature nit la. la nature nit la. donc mais. xeex du doon tous les jours. Mhm. mais xeex nag ci sport. Mhm. moo gën a di lu nekk lu normalul mhm. parce que sport yëfu garmi la. donc mën nañu bañ a xeex ci loolu donc écurie yi mën nañu jë te làmb ji quand même quoi qu'on dise am na ay ay ay ay évolution yu ci am. nawetaan bi sax am na ay évolution yoo xam ne xeexkat yi bàyyi nañ ko. donc euh, euh, loolu mën na dañ. donc pour ñu xam ne sport la ñu nekk. ku nekk da ngay faral te ku nekk da ngay daan baa ñu daan la loolu lay wax nit ñi ñëw ci làmba ji ñu jàpp loolu surtout nag ci fi nga xam ne foofu lañ jëm muy arène bu bees boobu ak li mu jar ak liñ ci def ak niñ ko defaree warul tax chaque fois buñ fa defee làmb mu am lu bari lu ci yàqu d'abord yàqu-yàqu bi lu muy jur lu bari li muy jur dafay bari. Mhm. mais dafay am tâche ba ci biir population ak koñ yi ko jege. Mhm. donc loolu ñun ñëpp war nañ ko moytu. Mhm. te fi mu jamono ñuy toll. ñun ñëpp ñoo war a moytu xeexu mbooloo. Sénégal yëpp rek laa wax. ak fu ñu mënti nekk. ñoo war a moytu xeexu mbooloo parce que fi muy àgg lañ ko xamul. parce que situation réew mi moo nangootul xeex. moo ko war a moytu. surtout nag xeexu mbooloo. donc loolu lay convier nit ñi. Mhm. ñu dem ci làmba ji jàmm. Mhm. ñëw ci jàmm. incha euh, allah loolu daal la ñuy la ñuy ñaan quoi dem ni mag ñi daan demee làmb ji. Mhm. solu sañse sol sa yére yore xaalis sa poos. dem làmb ji neex. sa mbër daan. nga dimbali sa xaalis jox ko. géwél yi nga may nga may leen. loolu mën na nekk pour ñi ko mën. bien que am na ay changements yu ñu ci war a apporter loolu tamit. mais ñu jàpp ne dañuy dem pour fo. incha allah rabbi jërëjëf Papa Doudou wàdd jërëjëf maa ngi leen di gërëm. Mm-hmm. di wax euh, maa ngi nuyu ñi ko nar a déglu yëpp te xaritu nekk xaritu Pape Dieng. Mm-hmm. di wax ne ñun ñëpp yéen ñëpp euh, am naa seen xalaat. Mm-hmm. xalaat naa leen ci bi may wax. defe naa ne wax ji ñun ñëpp ñoo ko bokk. pour un ami. koo xam ne kii il a grand service pour ñun ñëpp. yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin defal ko njabootam. amiin.